ayca mm-hmm. eh? ñu ñu nuyu ñu nuyu maamu Mrs Diop yaa ngi si jàmm yaa Mrs Diop maa ngi si jàmm mm-hmm. maa ngi lay nuyu eh, di nuyu Aïcha Diakhaté eh, di nuyu Cheikh Tidiane Gomis di nuyu ses spectateurs yëpp tey nag ñu fas yéene waxtaane mooy tabaski jamono ji xam nga ñu ngi waajal tabaski bu baax a mm-hmm. baax waaye tamit borom kër yi jamono ji mun nañ ne seen nelaw doyut te ñoo ngi xalaat la nga xamante ne moom la ñu war a def ngir rek mun a jënd xar ba tax na nag ñu invité kii di Aliou jaam mi nga xamante ne moom mooy secrétaire général syndicat unique des éleveurs du Sénégal Aliou Dia ñu ngi lay bu baax a baax di dalal ci plateau Petit Déj. maa ngi leen di fay maa ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen yi nekk ci plateau bi maa ngi nuyu euh, waa rajo bi yëpp. mbaa bi maa ngi nuyu itam éleveur Sénégal. maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. Mm-hmm. maa ngi nuyu éleveurs yi di nuyu consommateurs yi di nuyu Sénégal yëpp. maa leen di jaajëfal. Ah, <laughs> waaw kay <laughs> nuyu tamit nuyu lekkatu di bii. <laughs> waaw. nuyu tamit daa xëy di tooñ ci euh, ah, pël man fu mu nekk nii damaa kontaan. xam nga lu tax ma kontaan. Uh-huh. tey jii am nañu. Mhm. dégg nga. maanaam kii jiite euh, éleveurs yi. comme mhm. ça ñu xam tabaski bi nu muy demee. loolu rek loolu la voilà. c'est ça xam naa pël dafa am ay kanu pël. Euh, euh, kii nu mu sax Salma xam naa laataa ñu xuus ci waxtaan rek dañuy njëkk def ci prix xale yi dañuy ànd ak jamono rek ndaxte jamono ji moom boo waxtu xaar kenn du la déglu ba tax na rek en complicité avec Adjaratou su fekkee ne mun na indi rek tableau ba nga xamante ne Aliou Diop jot na ko monté mooy. mooy euh, njëgu xari jamono ji mhm. xam nga xar dafa bëri euh, façon xar yi nga xam ne dañ koy yaax ci biir kër gi ak euh, yi nga xamante ne aussi ay laadum la wala sax yi nga xamante ne ci région di ko fekk mun nañ ne rek jamono ji xar nag njëg li mu ngi waaw gis nga waaw laadum ay huit cent mille voire un million de francs CFA hmm. loolu moo faaw nag nga laal poche bu baax a baax a baax gis na loolu pour borom kër bu dee xaalis simple la mun nga am mun nga ko am ay deux cent cent mille jëm kaw bu dee région moom kay ay deux cent mille di bu baax trois cent mille di bu baax mais bu dee fii Dakar la moom deux cent mille ak trois cent mille mun nañ ñëpp nga xaaj ba nga xam te mun nga bëgg comme borom kër moom du du yomb euh, léegi lii lii nag lañ fi indoon comme euh, njëgu xaar euh, jamono ji fii ci mim réew jamono ba nga xamante ne dund gi cher na waaye tamit njëgu xaar gi cher na waaye rek dañuy déglu aussi ministre de l'élevage mooy Aly Saleh Diop ndaxte xam nga moom ministère bi bu ñuy waajal tabaski yi dañuy def ay état des lieux pour xool euh, mbir lu muy dox ci marché bi ba tax nag nag euh, face à la presse euh, ministre de l'élevage rek nee na dinañ subventionné yenn ñenn ci ay éleveurs ngir rek xar mi bañ a cher waaye tamit da moom nee na xaar du manqué fii ci mim réew ci atum 2022 bi mooy ci tabaski bi ba tax na rek su fekkee ne élément bi yemb na ajaratu penda ñu déglu Ali Saleh Diop ci micro xooxandong situation bi ñu démb dañu ñu koy jox chaque jour sunu service yi li fa nekk ci ay xar moo ëpp de treize mille ak lu topp boo ko méngalee daaw ci bés bi biñ ca tollee ren am na jafe-jafe ci dunduk jur gi loolu nag du Sénégal rek waaye li am solo ci tabaski gi président de la république dafa joxe ay instructions pour gannaaw bi nga xam ne gouverneurs yi taxawal nañ ay point de vente fépp pour que xar yi ñëw fii Sénégal yi di leen jënd mu décidé ñu jënd mille tonnes aliment de bétail def ko ci point de vente yooyu gannaaw bi nga xam ne tey kuy dem ci marché bi saako bi yaa ngi koy jënd entre 14 ak mille subvention boobu nga xam ne président la république daf ko def mu ne nañ indi saako bi ci 5000 francs état bi nga xam ne c'est de sa responsabilité jël na matukaay yi démb tey soog a ñëw ba kiy jaay. ak juróom dana ko ci jaay ci teyeku bakkan kiy jënd bëgg jënd bu ñëwee ci marché bi dana ko ñëw jënd ci ak teyeku bakkanam <laughs> ma réeroon feeñ <laughs> ndaxte am na ki ma ne moom mooy ministre de l' événement. événementiel ministre événementiel. Mm-hmm. am na ki ko wax daal fii ci biir rédaction bi. Mm-hmm. di jaajëfal ko xam donc ak kii di Louis Louis fay ñoom ñoo jotoon euh, taataan kaddu euh, kii di euh, ministre de l' élevage di Ali Saleh Diop. Mm-hmm. gis nañu rek nee nañu xaar du manqué waaye tamit dinañ subventionné yenn ci ay sites de vente ah, maanaam du ñëpp la ñuy kon bu yóbboo Sénégalais bu ñu yaakaar ne jamono ji moom mu ñëpp la ñuy subventionné mm. ba tax na éleveurs yi kenn ku nekk di ci wax xalaatam Salma mm-hmm. euh, Alioune Dia ñoo dëggandoor euh, ministre de l'élevage euh, tey jii nii nee xaar du manqué waaye tamit gis nañ ne Mali bu njëkk ji ñëpp amoon ab tiitaange ni amaana du am xal yi nga xam te dañu jóge Mali ñëw fii ci mim réew mm-hmm. Mm-hmm. fii ci mim réew mais mun nañ ne jamono ji jàkkante nañu situation bi Euh, yow en tant que ministre de l'élevage est-ce que mën nañu xam euh, sa astaghfirullah <laughs> mooy mun nga ko doon euh. waaw loolu moom neex na ci nopp mhm. tey lan mooy sa xalaat ci sorti ministre bi waaw ministre bi am li mu wax xar bari na ci Sénégal loolu du ma ko wétti dama koy déggal ndax soo seetee ren euh, xar bari na doonte ñu ñu bari ñu ngi ragal ne comme que Mali dafa tëj euh, seen fit dafa dem <laughs> dañu yaakaar ne Sénégal ren euh, du tabaski <laughs> te ma ma faral doon wax lu ci gën a bari xar yi nekkoon ci biir Sénégal ak yiy jógee Mauritanie lu ci gën a bari yooyu la ñuy tabaskee ci biir Sénégal am na ñu doon jóge Mali nag waaye lu ci gën a bari ñi doon jógee Mali itam Mauritanie la ñuy jógee traverse parce que dañu dem ba seen àll yi dañu lëkkaloo ñoom waa Mauritanie dañuy sàmm rek di dem seen xar suñu demee boo toll foofu nag foofu la ñu doon gën a dugg duggee ñëw mais porte bi ba mu tijjee teewul ne ñu ngi jaar ci yeneen port ñu ngi ñëw te fii senegaal xa dafa bari xaar bari xar boo xam ne euh, ñëpp xam nañu Sénégal Euh, défaut bari ñoo xam ne dañuy tabaski ndax danga gis benn kër tabaski fukki xar wala mhm. juróomi xar wala juróom benn xar mhm. waaye Sénégal ngeen xam ne mari ëpp ko xar Mauritanie ëpp ko xar mhm. dañu leen ëpp bon juin maanaam Ah, bëgg bëgg waaw loolu rek mooy indi lii mais xar yi bëri nañu. Mhm. léegi avant ñuy wax ci xar yi bëri na gis nañ ci rek euh, kii di euh, nu mu tudd sax euh, décanté nañ situation bi dana am xar yi nga xam te dañ jógee Mali ñëw fii Sénégal waaye laataa loolu rek bëgg nañ xam jamono ji ministre bi dinañ subventionné ñenn ñi ci éleveurs yi mooy seen ki prix kii aliment de bétail bi loolu aussi mun nañ xam sa point de vue. waaw su ngeen ma mayee danaa développé lu bëri donc bi dafa gàtt. Mhm. Euh, subvention yi ak lépp loo xam ne euh, lu dox li élevage ak lu doxul yëpp danaa danaa leer mhm. euh, ndax subvention bi am na depuis 2012 bi Macky Sall ñëwee ci nguur gi 2012 dafa amoon période boo xam ne dafa metti woon ci éleveurs yi léegi mu ne ñu danañu jox dana jox éleveurs yi 4 milliards mhm. ñu jënd ak aliment seddoo ko ñun ci suñu wàllu bopp ñu def réunion ministère de l' élevage boobu amante mbeng mu ngi fi d'accord ñoo ne avant ñu koy seddoo euh, ñu yóbbu ko nañu ko jaayaat suñu bopp mu ngi dem di ñëw mhm. boobu mu ngi ci département yi aliment boobu de chaque année lu ci gën a bari euh, dafa koy yokk mhm. waaye danaa ñëw lépp loo xam ne gàllankoor la ci biir ak lii dox ak li doxul subvention bi ñuy def période tabas itam dëkk jox waa daral bi chaque année mu am sax année mu am du at bi rek la am sax année mu am euh, li ñuy wax ne nag xar yi xar cinq cent mille xar trois cent mille xar un million éleveur bu tax ñu wax nit éleveur lu tax ñu wax éleveur éleveur bu tax ne Sénégal mu ngi lekk yàpp at bi ba mu jeex éleveur bi tax Sénégal yi di tabaski. Mhm. kenn ne ci ñoom musul jaay xar deux cent mille. ah bon te musul am musul am. sénégalais yi seen conscience yi nekk seen bopp yi ñoom ji seen gis-gis. Mhm. ni ñuy gisee ak ni ñuy doxale si dara réew leen lu dul seen doxal yi. waaw mais waaw mhm. damay ñëw. waaw dégg nga baal foofu moom dafa laaj taxaw. nga ne euh, que euh, ñi di jaay nekk ci kii maanaam xar bi dégg nga ñoom ñuy jaay lu ëpp deux cent mille. Mhm. mosuñu ko jaay sax. mosuñu ko jaay boo xam ne ci. waa éleveur boo xam ne eh, waa léegi ñan ñoo nekk ci. dara yi ci dara yi ñan la. ñi nekk ci dara yi. waaw eh, waxuma waxuma ñi ci dara yi. ñi nekk ci dara yi ñuy jaay xar rek waaw. dafa mhm. xam nga xar bi boo laa ñëw ci dara bi dafa bari. ñu eh, koy fi muy jaar. ñu koy jokkoo ma ñëw jaay la ka nga jaay kii nga jaay kii waaye xar yi gën yi seer mun naa wax ni yéen a koy yar mooy yéen waa Dakar yi soo ma def dégloo rek danaa développé yëpp ndax man dama xam élevage ndax laadun bi ñuy wax laadun tubambeer la tubambeer dafa am ay catégorie ay catégorie yu gën a mag ak yu gën a mag catégorie yooyu ngeen jàpp ak jaay ko ci rajo yi jaay ko fu ne ci foire yi jaay ko fu ne wax lu ne. Hmm. xar yow léegi yow xar su ma naaree dem jënd xar cinq cent mille. Hmm. wala quatre cent mille. wala un million. Hmm. ma def deux cent mille ma jënd xanaa xar moom mënu nekk cent kilos. xar mu nekk cent kilos lan mooy lan jënd nag. ah nag loolu su ma naaree jënd. ma def ma def deux cent mille ma jënd nag. ndax bi xam ne am na cent kilos. xam mais tabaski nag. xam nga dafa am daañu war a xam nga yow su ñu jaayee xar au million. xam nga diine benn wax soo amul soo amul lii nga dem ci lii. xam nga su ñu jaayee xar au million xar 500000 loolu mooy amoo xar. ndax nag. loolu mooy amoo xar. nan la laa am kon yàpp. munoo soo ko jënd kay amoo su fekkee ne sa poos attanu est-ce que am nga ko su dee sa poos attanu ko amoo. Mhm. ma dem ci dalal bi jënd yëkk bu rëy. ma ñëw rendi ko sama kër. xam nga. Hmm. parce que Sénégal dafa bari nu ñuy kiiwee eh, aliment de bi may ñëw nag. mais avant loolu tamit d'abord. ñu taxaw dafa xaw a am na xam ne wax bi du foofu. Mm-hmm. xam nga wax bi mooy fan. man moom dafa ne. que ñun waa Dakar. ñun ñoo yéegal prix yi. Ah. léegi man xam nga lu ma bëgg a laaj. xam nga lan xam nga lu ma bëgg a laaj. Hmm. dama ne ñu nekk ci daxal yi di jëlee xarit di indi te muy ay mbokkam. Hmm. pël yi la. daxal boo dem ñoom hmm. euh, bu tegee bi saa yi rek di jaay. di jaay boo gisee tey jii yàggul rek bu ma demee ba gis benn xarit. deux cent cinquante mille. cinq mhm. cent mille deux cent cinquante mille laa ko laa laa laaj ñu ne ma deux cent cinquante mille. foo ko gis. daralu tëggee. soo ko gisee taxawal di nga da taxawal rek. bi mhm. nga gisee foofu kar deux cent cinquante mille est-ce que gisoo fa kar cent mille. dama lay cent mille. mais xam nga cent mille. cent mille mboote lay doon. déedéet déedéet déedéet loolu loolu loolu man xoolal man li ma gis ja xoolal ci weer bi passé rek. jaay naa xar boo xam ne jaay naa xar cent cent cent cent dix mille. bàkkaar bu rëy jaay na car cent. fan euh, ci région ci région wala fii. xam na. li ma la wax maa ngi ñëw tuuti rek. ma maa ngi mais man dama comprendre man xay na man Aliou moom moom benn Sénégal la nekk. mais ñun ñi nga xamante ne ñun ay peut-être ay mère de famille lañ. Mhm. wala dëkk ak ñi nga xamante ne xëy na dañuy génnee seen poche pour dem di jëndi xar réalité bi ñuy fekk ci marché bi ak yow li ngay expliqué nii wax dëgg yàlla dafa ute. comprendre il faut le dire maamu na leeral foofu. man li a wax tey booy demandé jaaykat bi cher dañ lay ne aliment bétail bi moo cher maanaam dañ koy dundal di ko toppatoo di ko toppatoo ba à un moment donné ko jaay mhm. di di may déglu rek. ay waaw waaw léegi bàyyi leen ma ma dem. xam nga xam nga xam nga loolu loolu laa leen di wax. Mhm. xam nga ay eh, aliment de bi société ren yokku na ñaari yoon. yow soo demee ngay jënd aliment betaay bu seer xar yi li ngeen li ñu bëggoon yomb mu ñu yomb waaye li mu leen bëgg xamal ni xar yi ngeen di dëgg ay prix yu bëree bare bari bëri du xar yu jógee Mauritanie du xar yu jógee ci éleveurs yi loolu moom dama leen koy leeral ba mu leer nañ xar yar yi ci Dakar wala ñu xar yi nekk xar yaru Kaolack yi ngeen tudde euh, Euh, laadum xaw ma nu ngeen ko tuddee yooyu la ñuy jaay par un million un million deux cent trois millions sax. wala jëm ko. foofu d'accord naa yow. xam nga li ma la wax. mais yow dawal loolu wax la. ñoom bay laay ñoo ñu rey concours bergerie. la non non non. parce que gis nga ñii di euh, laadum yi da boo xam ne da ngay ñëw mais saa boo amul euh, maanaam da ngay ba ça dépend nga bëgg a eh, am na ñoo xam ne raas sax taxu leen jug noonu nañu am xar rek. mais ah. xar mooy hmm. xam nga xar ku ko war a jënd 500000 wala 1 million. soo xam ne dafa bëgg génétir. waaw dafa bëgg ñu jural ka téeméeri xar yu toll na ah. hmm. ah. waaye kuy dem tabaski. dem tànn xar 3 millions. 2 millions. 500000. yow kenn yow yow dëgg yàlla waaw damaa waaye xar yi ñu xar yi waaye gis na Alioune Ndiaye yow tamit na nga wax ci le fait que xam nga d'accord nañ ci yow li nga wax ne que bu fekkente ne jeu de nga bëgg ma géniteur boo xam ne da lay jural ay laadum yu baax yu kii mën nga ko jëndee ay millions loolu d'accord nañ ci ba xaru Dakar yi. gerte gi bergerie yi mais wàllum tabaski yéen tamit dañuy ñun dañuy xaar parce que ñun ñi nga xam ne nii suñu loxo jotul suñu ginnaaw dañuy xaar ba euh, bergerie ba ba kii yi ñëw ba. coggal euh, euh, coggal yi ñëw bu ñëwee ginnaaw suba la tam si ñëw mais nga ñëw coggal benn coggal bëgg jënd sama mil mu nekk ëpp nga dugg tuuti ko. waaw waaw waaw tuuti sa takk ay xar mois mu jënd aliment tey al xar bu ñuy tabaski. waaw sàmm. léegi wax nga ko bu bu ñuy sàmm. amul ndax su fekkee dañ koy sàmm sax su ngoonee dañ koy xon. yaa nga yaa ngi yaa ngi xont xar douze mois wala huit mois wala sept mois yaa ngi koy jëndal aliment de bétail te gis nga aliment de bétail bi nu mu seere loolu day prix day day day ñëw ci njëg ñi. loolu dana ñëw ci njëg ñi. yaa ngi soog a maa ngi ñëw yéen a ma téléphone rek mais dama doon ñëw. non non dama doon ñëw yàlla xam ne dama doon ñëw. mais il faut ngeen bàyyi ma toj. affaire bi affaire bi ca aliment de bétail bala. mais ci aliment de bétail bala. dëgg la bi ndax ba yéen. yéen aliment de bétail balaa bay bay leen moom a dem ci ndax man. waaw damaa ci am lu ma neexul. bàyyi na la de ay ca ba pare yéen may tënk bu ma dem. bu leen tënkate Aliou Dia bàyyi leen Aliou Dia. xam nga aliment de bétail bi wax naa président Macky Sall nañu ci lu bari loo xam ne subvention la mais subvention bi jaan dafa ci jur. dafa ci laxasu jaan def ci laxasu. dafa ci wax naa ko ci rajo yi wax naa ko gudd. Mm-hmm. wax naa ko bëccëg wax naa ko timis kiiwul dara. naan ban genre solution génneegul. Hmm. ndax lu tax solution solution génneegul. Hmm. Sénégalais léegi dafa neexul a gëm. Hmm. ndax dafa dafa am ñoo xam ne dañuy wax di yàq am ñuy wax di santage am ñuy wax di leble eh, kii loolu yëpp dafa am ci biir Sénégal. waaye man damay ñaan li may wax. maa ngi ñaan su fekkee ne nguur gi moom ñoom may dégg. Mm-hmm. wala ma wax président sax mooy may dégg li ñu li may wax nañu ko nañu dem xool ndax am na wala am na aliment de betaay bi ba mu génnee ñun ñoo ko sekk dañu waxoon de ba ñu fii defee réunion loolu laa leen bëggoon nette d'accord nga freiné ma non ay ba ñu defee mm-hmm. réunion ministère de l'élevage dañu waxoon docteur vétérinaire mm-hmm. préfet gouverneur am nañu droit regard waaye comme ñun la ñu mayoon aliment bétail. comme que ñun la ñu ko bañ. exécuté ñun ñoo koy def. Mhm. waaye ba mu départ aliment bi ba mu départ boobu nag la la la jaan dugg ci. Mhm. ndaxte ñi eh, eh, ñu sekkal bi. Mhm. mooy docteur vétérinaire yi. ñoom ñoo ko téye. amul do kayit bu leer bu ñu wax ne bu xam fu ñuy war mën a jaar ndax dañuy def commission département ñu def commission euh, euh, euh, locale mhm. ci commune yi mais commission yi dañu tekkiwul dara dara dara dara nga daanelee foofu rapidement waaw temps bi xoj nañu dara mhm. lu ci des mooy ci lekk jur bi xam nga su fekkee ni ñoo lay ñoo ngi lay bëgg jàppale mhm. ci lekk jur bi lañ la jàppale comme que sàmma nga jàppale la ci àll mhm. ñu jàppale la ci naan jur gi mhm. loolu am na d'accord jàppale nañu ci ci ci forage yu bari mhm. am na Sénégal waaye nag lépp loo xam ne mooy culture fourragère bi ñuy dugal xaalis bu dul jeex ci àddina culture fourragère bi ba léegi ba léegi ñun gouvernement bi mooy ci dugal xaalis waaye ñun gisuñu gisoo leen dara gisuñu d'accord en tout muy jaar. Mhm. su fekkee ne yow docteur vétérinaire bi moo lay fajal sa jur. Mhm. moo lay defal culture fourragère. Mhm. su aliment ñëwee moo koy dem négocier. lu wax nag ñoo koy négocier usines yi te usines yi sooy négocier moom lu bari dangay am restourne. dëgg la restourne boobu waroon ñëwaat ñëw ci. éleveurs yi ana resternu bi doy na waar loolu monsieur Aliou Dia ñu lay jaajëfal ah, vraiment certainement dinañu amaat yeneen jotaayu waxtaan bu ko defee nga gën a gën a mën a mm-hmm. yaatal bu baax di la jaajëfal sa présence mm-hmm. Mamour amoon na solo waaw ñu bàyyi ko mu wax lu dernier mot peut-être lan ngay tàggatoo euh, sama dernier mot rek ma kontaan naa bu baax mm-hmm. waaye li ñuy wax ci rajo yi dañuy ñaan gouvernement bi moom lañ bëgg a xool ndax li ñuy wax am na am ndax su fekkee ñun dañuy ñëw wax ñooñu taxaw fàlli wax technicien yi ñu nekk werante rek mel na ay avocat ñu taxaw ci baaru mm-hmm. affaire bi di sotti <laughs> nañu ko gëstu seet ndax li ñu wax am na wala amul mm-hmm. macha allah waaw parce que ñun nguur gi mu ngi ñuy jox. Mhm. waaye ñu ngi jox. ñu ngi léegi maam yow tam ñu ngi lay jaajëf. waaw ma leen di jaajëf bu baax. di ko remercier moom aussi <laughs> Aliou Dia euh, li mu wax aussi loolu am ndaxte jamono ji mun nañ ne. àggul ci ñoom. Euh, <laughs> àggul ci ñoom. Aliou Diagne nee na àggul ci ñoom. àggul ci ñoom euh, subvention beeg nanga pour kii bi euh, pour dundal àggul ci ñoom. àggul ci ñoom àggul ci ñoom et j'espère que ministre de. muy ñaari voilà ngay wax. Uh-huh. culture fourragère bi ñuy def xaalis bu bari. waaw depuis sax avant sax deux mille douze ba léegi ñu ngi ci def xaalis culture fourragère bi ñun ñu am na éleveurs yoo xam ne ñu ngi dikkati dex culture fourragère yombaleen béy ko yombaleen ñoo ngi ñaan ñi ko téye nañu ko jox. ñi am suuf. Mhm. am ndox am na solo bay ci 3 heures. su boobaa dootul soxla aliment de bétail.